wa sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bi nu santee suñ boroom julli ci yonent bi sallallahu alayhi di sant xaadimu rasul di sant suñ Muhammadu Muntaxa di ñaan taxawaayam yàgg lool ci barke Seexuna Seexul Xadim Cheikh Muhammadu Muntaxa murid saalix ku baax bu bari yërmande bu gëm Sëñ Tuubaa ku bëgg yàlla yonent bi ku laabiir ku bëri yërmande noo ngi koy siyaar lool di ko ñaanal bu baax suñ bu guddal fanam ci wéral ko ci eggalee mi ba tam yëpp ba mu defaat yeneen di siyaare bu baax mari saadax sëñ Yuusu yu fa jóob ak mboolem ñi mu àndal liggéey bi di ko ñaanal yal na yàlla woyafal yan bi ba lépp lu mu bën a liggéeyal sëñ Tuubaa mu ànd koog waa daara ji liggéeyal ko sëñ Tuubaa at yu bari lool te nu ànd ko moom ci barke Seexuna Seexul Xadim dellu di njukkaliit képp koo xam ne teewoon nga ci ziar bis bu jàpp naa ne ku fi teew rek man eh, teewaale nga ma mu sedd sama xol lool muy ziare képp ku fi teew góor mag jigéen ak mboolem dëkkandoo yi ak xarit yi ak wëlër yi nekk bitim réew yépp di ñaan suñu borom mu defal nu ci taw feex ak ngërëmam ci barke du Mouhamadou Mountakha xam leen nag bu tarxee ñoom jëmm lañ yoo xayee ni ko Cheikh mun Mountakha waxee rek leen dañuy toppaat ci ay waxam rek jëmm lañ yoo xayee kiimtaani suñu borom tabaaraka wa taala ndax liggéey sëñ Tuubaa rek mooy li leen ñor la ko tàmbalee ci góor yàlla ga suñu aatu di ko ñaana yàlla na ko yàlla dooli taw feex tabal ko jànnatu firdawsi bi xëy na hisaab ak mboolem ñu mbokk luñ liggéey bi ca ñu bokk jiitu foofu foofee ak ñun ñi ñëwaat ñii ñëwaat gannaawam fekki ko yal yàlla boole yërëm di ñaanal bu baax a baax a baax senegal gépp daara yi ne ci biir réew mi ak ñi biti réew ñëpp waa ahlu kuréel xaside yëpp ñu ngi leen di siyaare ñaanal di ñaanal bu baax it yi nga xam ne ak i doomam ñoom ñëpp àndoon ak moom liggéey bi teewel teewee euh, siyaar bi ñu ngi leen di ñaanal bu baax taw feex xaali di xam le nag bu Tarqiyyah ñoom man dama yàgg ñoom ñu mat lañu ndax am nañu xam-xam jëfe ko yaru nañu am na teggin rafet nañu jikko jëmm lañ yoo xam ne it kenn du leen fekk ci lu ñuy tere kenn du leen gis ci lu ñuy tere ka ca mag ba ca gëñal tuuti ñoom ñëpp dañoo tënku ci ndigalal yàlla yonte beeg Serigne tubaa kon nag maa ngi leen ci delloo njukkal ñoom ñëpp waa daara ji ñu ne ci biir réew biir ñu ñëpp di ñaanale sama wëlër yi sama xarit yi nga xam ne ñoo bokkoon ne fii ci koñ bi nu àndoon dem ci siyaar bi lu mel ne que koñ bi yëpp kat sëñ Mbacke Diop Kassaan waa ahlu Mbusoo bi sëñ Fallou Mbusoo Cumbuleen ak mboolem njabootam damay delloo njukkal rek jëm yi nga xam ne dañoo àndoon nun liggéey bi àndoon nun siyaar bi ma di leen sant di leen gërëm ne sama xol sedd guyi lépp